alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi cheikh mahamadou muntaqa ak sëriñ Amdi Moustapha di siyaare di leen ñaanal sunu boroom guddal seenu fan njabootu maam Cheikh Ibrahima yépp bàyyiwuñu kenn di ñaanal di siyaare kilifay diine yi sëriñ seexu naa ñu ngi lay ziyaare bu baax di la ñaanal sunu gudd ànd ak wér ko ñaanal njabootu sëriñ Abdul Ahad Mbakke di ziare sunu sëriñ sëriñ alaaji fàllu njaay ibnu sëriñ Mbakke njaay ngeeraan ak ay rakam ak njaboot gi yépp di ziare waa kër gi tàmbalee ci sëriñ Modou Diop Thiat ak sëriñ Moustapha Thiam soxna warx bu ñu limee kilifa yooyu rekk yóbbaale nañu waa kër gi yëpp di siyaare bu baax a baax sëriñ Fallou Fall soxna xujja ñu ngi lay siyaar ak soxna jama mboolem waa kër gi yëpp Baye Cheikh gay Rijaal bëgg fàllu ñu ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot bi yëpp ak euh, Baye Basirou Seck mboolem kilifay rajo bi émission tànnal sa njariñ dellu siwaat na muy am samedi bu jot ak dimanche bu jot ci aar bi ki leen koy defal mooy seen mbokk Baye Diagne Asrar saa bu dimanche jotee ci aar bi ñu ñëw toog ànd ak yéen di leen seetal di gindi ku wonte ak yéen ci nekkin yi ci kër yi ci njaboot gi ci liggéey bi ci am-am bi ci nekkin wi lépp rek mbokk yi su ko defee tabia bi lañuy seet bis ci sarax yi ak li ci aju ba ci sëy moom it des na ko seet incha allah kon ku bëgg ñu seetal la fréquence rajo bi mooy mooy 88 point 5 mooy fréquence rajo bi numéro bi nga may jote nag muy numéro rajo bi mooy 88 628 19 05 mooy numéro rajo bi 88 628 19 05 am na it ba tey 88 628 81 08 88 628 81 08 ñaari numéro yooyu mooy numéro rajo bi mbokk mi su ko defee rek ñu sóobu ci leeral yi ginnaaw bi ñu siyaaree kilifa yi diine yi nekk ci dëkk bi yépp bàyyiwuñu kenn tàmbalee si njabootu Seyxul Xaddiim njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem mboolem seex yi nag bàyyiwuñu kenn man am na benn <clears throat> bu ñu fi joxewoon démb dafa bari ñuy woote lool di laaj ne dafa desee leer ci seen bopp ñu bari ñu bari nag waaw lu ëpp lu ëpp juróom-ñaari nit woote nañu di laaj ne dafa desee leer ci seen bopp man leen dinaa ko leeral muy ku bëgg a mucc sa njaboot mucc ak képp ku la xam da ngay wut ñetti kilo dugub boobu lañ fi waxoon démb te ñu bari doon wax ne dafa desee leer ci seen bopp ñetti kilo dugub ñetti kilo ceeb noonu laa ko waxee woon danga koy teg ci sa kanam nga toog tiim ko walla nga taxaw tiim ko basmala nga ci jàng basmala mooy bismillahi na am na soxna yoo ne xamuñu lan mooy basmala basmala mooy bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim noonu nga koy jàppoo ba am junni ak téeméer ak fukk ak benn benn ngay def def téeméer benn ngay def def fukk def téeméer def junni bu ko defee da ko ci tuuf li nga koy tiim boo ko jàngee ba noppi nga ëf ko ci ci pepp mi ak ci ceeb bi fekk ñoom ñaar ñépp moom nga tiim mbokk mi lu ko gën a gaaw ci muccal sa bopp muccal sa njaboot amutu danga ciy muccal sa bopp muccal ci sa njaboot lu am solo lu am solo la eh, mën nga koo def fajar fajar lis koy def jàng mi fajar nga koy def waaye sangu gi itam fajar nga koy def fajar bi nga ko jànge su fekkee naaj na bi ngay noppi da ngay bàyyi ba beneen fajar nga sangoo ko waaye fajar lañ koy sangoo moom mën nga koo jànge tey nag ci fajaru tey gi tofli ko ci pepp mi bàyyi ba suba nga jóg fajar rek balay fajar si di dem nga sangoo ko boo noppee nga sarax ko mag mu màggat mbokk yaakaar naa ne leer na incha allahu tabaraka wa na sóoratu jinni lañ ci tegoon moom it ba ci jeexital ba waaye moom it day ànd ak koraay lay ànd ak koraay xam naa loolu lañ ci jot na leeral dana ànd ak koraay ak su ko defee nga daal di koy moom it lu gaaw ci seytaane la seytaane ak rab ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp lu ci gaaw la sekk nag doo ko def benn yoon rek bàyyi da koy def baamtu ko ba lu mu néew néew ñetti yoon ñetti yoon nga koy def incha allah kon ñu ànd ak yéen ci 88 628 19 05 yaakaar naa dugub bi ak ceeb bi. moom la ñu bari doon wax naan wax dëgg intéressé na leen trop pour ñu gën koo leeralaat su ko defee kii dafay wane wane daa jël daa jël chiffre neuf mu bëgg ku ko ci leeralal ay mbiram ma wax ko ne ko chiffre neuf li mu indi nit la koo xam ne yàlla dénk na ko xel yéene ju rafet waaye danay wax ay secret mit loolu na ko moytu bu baax ndax secret bi saa boo ko waxee nit bu demee ba seen diggante rataxatut mën nay walbatiku di ko di ko waxaat maanaam day nit ku yomb a wax sekkareem daal am na nit ñoo xam ne béggee bégee ku ñu àndal ku ne wax la lu nekk ci ñoom lépp te ci ñooñ la bokk mu ne itam nag alal bii da ko jot bu nekkul alal yi ndono nekk alal joo xam ne wàllu teg la wala xeeti natt ak yooyu waaye boo ko jotee da nga nanga faj nag ndax dafa am jàngoro bu nekk ci yow di wëndeelu sarax bi dangay wut ñaari seq gu weex mooy seq bu weex ak gu ñuul gu jigéen bi su gaaw nga koy saraxe nag waaye soxna su màggat moo ko moom su ko defee sa mbir mën naa jaare foofu baax benn jigéen bu war a génne sa loxo it waaye kooku njabar moo leen teqale sa wàllu njaboot nga am ci jafe-jafe yu baree baree bari waaye du ci soxna yi jàppal na ci yow la moo tax war a jël def ci sa yaram ay ñaan ak yu mel noonu waaw kay sa doomu ñetteel bu góor bokk na ci ñi lay gën a jariñ bàyyi ko xel danga dem nag ba sant sa borom incha allah barab boo mën di nekk nee na nga ci góorgóorlu bu baax a baax a baax te yokk ci say ñaan ndax kat ah, mbir mi xaw na tar lool waaye changé loowu la barab yokkali ñaan ci barab yi la te bëgg aw yoon itam di nga ci dem incha allahu mbokk mi jàppal na feebar bi wut ci saafara dana wér jaaxle nga ci lool waaye tiit nga ci lool itam waaye wér gi rek lañ ci gis incha allahu ci tawat bi jërëjëf mbokk mi jël mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum bisimilah sëriñ bi. allo. allo salaamaaleykum. allo. allo waaleykum salaam. mbokk mi ñu ngi lay dégg xam naa képp ku ci woote rek bu yàlla dogalee nga yor nga yor casque. wala ngay déglu ci rajo bi dana xaw a yéex ñaare loolu a fàttalee la rek waaye xëy na sax nekkul waaye nag moom mën na nekk yorul casque wala dégloowul ci rajo waaye fàttalee la ci ñeneen ñi bëgg a woote rek bu dee casque bi mën naa am jox problème diggante bi pour mu gaaw a agsi ci moom ak yooyu bu dee rajo bi noonu waaye boo dégloo ci portable bi nga woote rek danañ mën a jokkoo jokkoo bu leer incha allah seetal la la nga bëgg a seetlu yéen a ngi ànd ak Baye Diagne Asrar fii ci seen rajo Baol Média FM macha allah seet gu wér itam nag luñ la ci wax rek faye ko bor te jàpp ko te jëfandikoo say sarax ay fan rekk incha allahu lu baree bari dana yéwén ci say mbir asalaamaaleykum. waaw. Ah. allo. salaamaaleykum. allo. waaw kilifa gi ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax ah kilifa googu dafa mel ni moom déggante ak moom eh, mbokk mi mi ngi noonu su ko defee rek liñ lay wax nga di ko bàyyi xel ndax laaj bi yomb na lool wax dëgg yàlla lan mooy sama tabiya lan mooy sama bis lan mooy samay sarax ñu waxal la lépp nga jóge fa bàyyi ko wala fàtte ko lépp te bari na ci nag bari na ci lool ndax day am ñuy dab dabaatal di ma woowaat di wax ne dañoo fàtte lañ leen waxoon bari na man de fàtte naa sama tabia wala sama bis sax fàtte naa ko wala sarax yi ma war a génne fàtte naa ko xëy na da ngay jàpp ne mbir mi ñenn ñi dañuy jàpp ne xëy na daal maanaam fola walal nangam ba tax na dëgg-dëgg nañ ko war a jàppee ci seeni sarax ak seeni doxalin ci wàllu couleur ak seen doxalin ci wàllu bés day des dangay gis ko benn yoon lay saraxe rek daal di cay génn déedéet du noonu dangay ngay fexeel saxal say sarax lu mu niiw niiw niiw nga toftale ko ñetti àllarba wala ñetti alxames yaa xam sa biddiw kañ lay aye ci bis yooy ndax dama lay wax ne la juróom-ñaari asamaan la juróom-ñaari suuf juróom-ñaari biddiw juróom-ñaari bis waaw su ko defee nag biddiw bu ne dafay moomee juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu ci asamaan am na ci aw dawin waaye bu dee ci suuf si fii tam sunu ardu bi ardu du suuf turaab mooy suuf ardu mooy dënd bi su ko defee sunu ardu bi dafay am moomit wàccuwaayu biddiw boobu ndax ni mu amee waay ci kaw asamaan am am fulk bu mu dëkk noonu lay amee effet ci kaw suuf rawatina nit ki nga xam ne moo nekk biddiwu otaarit wala moo nekk biddiwu sams wala benn ci juróom-ñaari biddiw yooyu su ko defee bis ba da cay am solo lool dañ naan àllarba biddiw bi ñuy wax otaarit mooy aye ci sept heures moo ciy aye kon première heure biddiw bu njëkk a génn yaa aye bis ba mbokk mi yaakaar naa ne loolu wax nañ ko a waxati ko wande pour rek loo gën a avancé loo gën di déglu gën ci am ay leeral yoo yoo ci amutoon loolu lañ jubloo ci leeral yi ndax waxtaan du benn jataay rek nga mën a wax lépp du benn jataay nga mën a leeral lépp waaye benn jataay ca ngay doore commencé di leeral saa boo dellu siwaatee muy gën di leer ak di fàttalee léeg-léeg la nga paase woon ndax am na ci ñoo xam ne dañ koy fàtte ba tax na saa boo dellu siwaatee xamal leen ne leen ah biddiwu utaarit kat yow mi ko amee fi na ki amee biddiwu utaarit man lay déglu ki nga xam ne amee biddiwu sool mu ngi déglu ki amee woon biddiwu mustar dañu woo ko wax ko ko mu ngi déglu day mel ni kon mustar alxames la moom àjjuma bi ban bu ko fàttee suurata la samdi bu ko fàtte sool la noonu ngay toftale bis yëpp boo déggee sept heures huit biddiw bi dafa ciy njëkk a fenk moo tax biddiw bi aya bis boobu heure boobu lay njëkk a fenk mi ngi terminé six heures six ci suba lay jeexal gis nga parce que jullik suba gi du sori foofu sax diggante six heures six heures moins nangam daanaka rek foofu lay foofu la tënku su ko dee foofu nag la jeexitaluk awlante biddiw yi jeexe foofu beneen day daal di roofu muy bi ayewaat ci bis bi day daal dugg bu seteer jotee gis nga distant boobu mbokk mi dafa am ay effet yoo xam ne mën na koo def ci kaw suuf si moom biddiw boobu ndax bu dee utaarit la dañ lay wax ne la ci wàllu wërsëg ak ci wàllu àdduna ak ci wàllu doxaliin moo xam ku jigéen la moome moom mooy utaarit utaarit jigéen am na utaarit góor am na kooko dana ci am cër bu dee jigéen la moom ci jëmmi boppam bu fekkee amul wërsëgu yaatu alal ju yaatu matériel bu yaatu dund gu teey dana am njaboot ca biir njabootam dana ci am ku donn loola moom su ko amutit njabootam kenn ci dana ko donn dana dana ko dana ko nekk incha allahu te loolu dafay ajowoo ci ganek jamono doomu aadama bi danaa la période bii li tàmbalee ci un mois dix jours wala un mois un jour bii bu fi nit ganee jamono bu boobaa day dellu ca tabia ba tabia ba la lay leeralal ne la tabia sàngam la loole nag tabia ba dafay def toujours ànd ak dundinu nit ki bu dee naar yu nga day suye ci sa dund bu dee turaab yu nga da ci suye bu dee xawaa yu bu dee maa yu bu ci nekk rek dana suye ci nit ki naka la ak dundam tëdde waaye loolu it mënoo koo jàngat ci kaw tabia yi kese ndax bu dee tabia yi kese xëy na mën na gàtt njàngat waaye boo delluwaatee ca biddiw ya dafay gën a leer dafay gën a sara bu baax biddiw sams ki ko doon nangam la avant ngay doon biddiw samsu tabia ngay njëkk a doon ba noppi door a mën a wàcc si ci biddiw yi door a mën a wàcc ci bis yi mbokk yi bis bu ne rek am na lum la cay jàngal sarax bu nekk itam dana la wax ne la lii moo tax ñu gën a lël la sarax bi lii moo tax ñu gën a lël la sarax bi mbokk mi couleur bi itam wala kulli leen day daal taxaw moom it ci nit ki naka la war a fonke couleur ak it ci biir dox ay soxlaam ak ci biir ay demam ak ay dikkam loolu buñ la ko waxutoon ci xam-xam itam te nga seetlu ne ñu baree bari fonk nañ ak col ci bu ñuy dem ci barab sàngam lii lañu war a sol bu ñuy dem ci barab sàngam lii lañ war a sol bu ñuy dem ci barab sàngam lii lañ war a sol bu boobaa am nañ ay conseils yoo xam ne ci fànn gii la ñuy yëngatu yooyu ñoo leen di solal ñoo leen di summiloo ca Baol Média nag yàlla dogal na moom sa tur rek ngay wax ñu wax la sa couleur waaw même bu fekkee bëgg yàgg ci ligne bi sax sa couleur rek boo joxee sa tur après en direct ci tur wi déw ci génne couleur waaye bu fekkee yàgg nga kaa def yàgg nga kaa yàgg nga ko jàng yàgg nga koo trouvé en direct tur wi mën nga ci génne couleur en direct ci tur wi ndax lan tur wi day am foo koy jaarale comme ça tey bu nan la man la Ousmane wala man la Moussa wala man la Ibrahima da ngay daal di xam en direct ne Moussa kii kat tabi'am nangam la te tabi'a moom saaboo boo ci ñibbee rek dalay lay indil couleur bi en direct incha allah du ci yéexee lenn moo tax toujours nit ki su wootee mën na laaj couleur mën na laaj ay saraxam ay bisam lépp te fonk ko bu baax nag bañ di laaj di romb di dem rek kooku amul solo laaj dégg na ñuy woote di laaj di laaj yow nga woote rek laaj waaye jàppoo ca dara loolu du la tax a jariñ dara te dañoo bëgg nag wax dëgg yàlla jataay bi képp ku koy déglu say mbir di ci saafarawu ndax jafe-jafe àdduna bari na lool problème mu àdduna yi bari na lool kenn ku si nekk nag bu ñu sañoon la nekk say jafe-jafe wala la nekk say problème nga fonk ko ci tegtal yi nga xam ne dañ la koy faral di jox ndax ay tegtal la yoo xam ne nekkul ñoo ko éventel suñu bopp nekkul ñoo ko xalaatal suñu bopp waaye ay borom xam-xam ñoo ko def bind ko ay téere daal wane ne nag ku def lii am lii ku def lii am lii ñun loola jottilee rek lañ ci am la sunu borom subhaanahu wa taala waxoon sunu sang seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow jottile rek moo la war kon jottileel waaw su ko defee loola ñun dañ cay roy duñu moom jegewuñu ko sori nañu ko lool ci wàllu mbaax waaye nag yàlla dafa wax ne laxat kaana lakum fii rasulillahi uswatun asana su ko defee ñu tegtalante rek jàppalante rek ba jàpp nañ ne liñ lay wax ci wàllu ilmu nujum liñ lay wax ci wàllu asraar boo ko toppee rek danga nga si jariñoo incha allah newuñ nag ñu ku topp ku ne rek da nga jariñu déedéet yàlla sax mayee wut noona yàlla day defal nii xañ ni gis nga ko kon loolu ci sunu borom la doore sàkkaan ak doomu aadama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faj na nit wérut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faj na nit waaye avant muy wér buñ mënee ne buñ mënee ne sonn na ci dañ naan sonn na ci ndax kooku mu doon wax naan jox ko lem jox ko lem ba trois fois kooku door a gis tan ci yaramam kooku xam nga ne moos ku toll ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da doon jàngale booba dafa doon jàngale rek wane ne lépp mu ngi ci loxo yàlla waaye doomu aadama yoru dara kooku moom toujours saa boo jortee ne doomu aadama bi yor na dara rek wala mën na dara rek incha allahu dëgg la xëy na effort bi moom moo ko war a def waaye nag alxudra bi yadillahi taala 88 628 19 05 88 628 19 05 loolu la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal maam Cheikh Ahmad Bamba it loolu la ñu jàngal day wax ne da leen wàkkilu ci seen borom waaye daleen def sabab yi itam nag kon tawakulu ci sa borom rek bàyyi asbaab yi loolu it ab jullit du ko def waaye boo defee tawakul ba noppi da nga def asbaab yi sabablu lu na te am sabablu luy tax te ñàkk waaye da nga koy def ndax daf la war rek li la war nag def ko wàññeewu dara la ca des nag bi yaddilaay ma nga ca loxol yàlla yàlla may dogal mooy dogal lu mu dogal neex na ab jullit 88 628 19 05 salaamaaleykum allo mbokk mi yaa si biir waaleykum salaam waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. bisimilah allo. waaw maa ngi dégg bu baax bisimilah. allo. allo allo. ah mbokk mi xam naa ne waa kay su ko defee rek 88 628 19 05 dafa mel ni. 88 628 19 05 88 628 81 08 88 628 19 05 mbokk mi foofu ngay jaare su ko defee rek ñu daal di wëyal euh, laabirante gi te yàlla rek tax ak euh, dëkk bi nga xam ne moom la ñu bokk ci wàllu asrar ak ci wàllu ilmu nujoom liñ ci xam ak néew lu bari nekku ne dañ koy jàngale it xalaatuñu ko te jimuñu ko benn yoon itam nag donte bari na ñu koy sàkku lool bari na ñoo xam ne itam dañ ci bëgg di ci jariñoo bu baax a baax ci yadd ak yadd wala euh, safa ak safa waaye déedéet mënagul a nekk dama koy faral di wax toujours ne nekkagul loo xam ne dañ koy jàngale asalaamaaleykum mbokk mi daa mel ni génnaat na ñu xaar ko day def 88 628 19 05 baay Diagne Asrar moom ngeen àndal su ko defee rek mbokk mi euh, mucc am na solo lool nga jaare ko ci pepp wala nga jaare ko ci ceeb bu ci nekk ñetti kilo 3 kilo gis nga chiffre daa am solo lool bu ëpp bu wàññeeku bu mu ëpp bu mu wàññeeku caabi la chiffre mbokk mi boo yorante yi ñu jël auditeur boobu asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, sëñ bi ñu ngi siyaar ba. dayoo borom sarax yi ak couleur yi. bisimilah tur bi. Cheikh Moustapha. ah ak sax Cheikh euh, Moustapha couleur yi xonk ak euh, son maanaam rouge ak soon du looy sol waaye day bokkaale ci sa biir yére ak ci sa biir biiri matériel kooku da ciy baax lool te rab bi daf koy faral di bége. biddiw bi mustar la Cheikh Moustapha bisu alxames la 7 heures 8 heures 14 heures 15 heures ñaari heures yooyu ci la mustar boobu di génn dana la yàqal ci liggéey nag dana la yàqale ci wàllu am-am ba ci wàllu jëmm ji ci ay xeeti tawat yooyu tawat yi nag la cay gën a fes mooy ay gént yu bari ak di yàqule ah, génn la couleur yaa ngi noonu rouge ak sonn waa koy ah, xam naa 88 628 19 05 Cheikh Moustapha yowmul xamis reyaaru ayaamik yaani yowmul xamis waaw wa adaraha yowma sulasa yowma sulasaay yow ma nee rek nga di ko di ko teet ndànk-ndànk moo gën bi maanaam nga di ca bañ ca xuus lu ëpp daal comme ça di ci génn di tukki wala di ca sanc wala di ca tàmbali dara déedéet su ma nee muñ ba talaata bi jàll moo gën waaye nag alxames moom sa bis la loo ca def dana baax sa couleur bu dee seex Moustapha bu dee seex Moustapha couleuram son la ak ruus du lu sol nag mën na bokk ci yéreem tey boo amoon fukki yére yu weex jëndal benn bu soon wala benn bu ruus dugalaale ko ci sa walis bu ko sol jarut sol nag waaw bu la soobee bu la soobee sol wàññiwul dara ndax sa couleur la waaw kay ba ca topp mooy bu dee matériel la boo amante ñetti oto wala ñeenti oto benn ba nga def ci couleur bu xuruus wala bu son kooku yi day baax ci wàllu alal ji te lii ma lay wax nag boo delluwaatee ci ilmu nujum bi ca biddiw ya dalay leeralal couleur par couleur waaye couleur day topp tabia nag moo tax bu dee tabia bi moom dañ naan la tabia ndox tabia suuf tabia sawara tabia ngelaw benn bu ci nekk couleur bi mu gën a bëgg da koy daal di génne boo delloo ci njàngale yi Euh, biddiw yi rek asrar asrar asrar bi rek dafay daal di ñëw incha allahu day leer naññ 88 628 19 05 dafa mel ni am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko 88 628 19 05 salaamaaleykum asalaamaaleykum allo waaw sëriñ bi waaw. ñu ngi siyaare bu baax. ba jàmm rek. jàmm rek kay. alhamdulilah. ah xoolal nga xoolal mu biddiw bi bi ak ak ak couleur bi. waa tur bi nu mu tudd. ak liggéey bi. tur bi. alo ma ne sa tur jox ñu tur wi ñu xoolal la. mbokk mi. allo. waaw allo maa ngi lay dégg bu baax a baax. allo. déggante gi daal xam naa ne moo des la mbokk mi ñu ngi ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax 88 628 19 05 xam naa déggante gi moo xaw a des dama xamul nag euh, waaw kay 88 628 19 05 mbokk mi ñu ngi lay jégalu bu baax a baax day laaj euh, couleuram di laaj bisam di laaj saraxam waaye di laaj liggéey bi ak yaram beeg lépp rek moom lay laaj su ko defee maa ngi ko doon laaj tur waaye ci biir laaju tur wi jotuñu cee déggante bu joxoon tur wi rek yooyu daal di mën a génn 88 628 19 05. asalaamaaleykum. dégg-dégg bi de moo neexul. waaw dégg-dégg bi moo des waaw dégg-dégg bi moo des. mais damaa déggul bu baax dafa mënu ko dëgg la dëgg la xam naa man maa ngi dégg mais sama retour lay doon xam naa boobu. allo waaw. man maa duggoon léegi. waaw. waaw bi. ah. ma ne sa tur sa tur tur wi. ah. numéro 8. Ah, numéro 8. mbokk mi numéro 8 euh, la dafay leeral lu bare bare bare ci say mbir nee yow ci sa jëmmi sa bopp yaa ngi am mbégte gudd fan itam nag waaye sa naxa dëddu la mu am koy xalaat ku nekk ci tawat mu ne jëflanteeg mbooloo waaye dafa am néggandiku nag dana baax sa jëflanteeg mbooloo boobu bu ci yàkkamti bari na lu lay tardeel day nekk ci àndandoo mu ne am na benn liggéey bu ñu lay def waaye du yegsi yàlla moo la musal te aar la na muñ nag sang bi xat-xati alal ci sa wàllu dund su fekkee mën ngaa sensé place bi sensé gi moo gën ci wàllu liggéey bi su fekkee mënul nag def ci ay ñaan te saraxe ginaar gu xong la la wax ak seq lay doon da nga koy rey togg ko soo ko reyee togg ko mën nga koo booleeg ceeb bisu alxames nga koy def sarab nag baax na dafay mel ni soldaar ci yow foo jëm mu garde la mu ne da nga am affaire problème mu xaalis instant bii ñu toll wala jigéen waaye taxut mu garaaw lool ba yóbbu ci dayoo waaye nag li ëpp ci say noon say àndandoo lay taxaw dawal coow rawatina waxi suuf baaxut ci yow loo am dafay faral di yàqu yàlla dina la joxaat lu gën loola mbokk mi na nga sant sa borom bu baax te xam na sëg mujj da nga dem ba ne alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf loolu mooy bi waxuma couleur bi de tur bi tur bi boo ma joxee tur bi ma wax la couleur bi ah ruus ak son la ruus ak son rouge ak son tubaarkàlla mooy couleur bi rouge ak son bu dee chiffre say mbir lañ lay leeralal bu dee couleur nga bëgg ak bis ak tabia tur ngay joxe tabia tur a koy génne bis tur a koy génne biddiw tur a koy génne couleur tur koy génne 88 628 19 05 asalaamaaleykum bi ñu ngi siyaare bu baax barikàlla. man la Baye Cheikh. yi ak sarax wàllu liggéey bi waaw. Baye Cheikh euh, ndox la taxawe ndox la. couleur bi nag euh, ñetti couleur baax na ci moom weex baax na wert euh, baax na baxa baxa itam baax na weex baax na gerte baax na baax a baax na bu dee ci xeetu liggéey bu dee ci xeetu liggéey la bépp bépp liggéey boo xam ne Baye Cheikh sax na ci rawatina waaw Baye Cheikh allo acca xam naa ne la

ñu jëlaat euh, beneen mbokk baay Cheikh biddiw bi marix la Baye Cheikh bis bi talaata lay tombeel ñu jël auditeur boobu asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, bisimilah. waaw ah, Baye ah. maa ngi lay leeral ma ne la tabia bi dafa nekk euh, ndox biddiw Baye Cheikh marix la ñu koy wooye bisab Baye Cheikh talaata lay méngool rafet na ci moom lool. bis bi sept heures la la biddiw bi génn ci suba bu jëlee suba ba noppi rek ba huit heures biddiw bi dana suux bu deux heures jotee ba trois heures bi dana suuxaat bu dee couleur la ñetti couleur moo gën ci moom weex ak bula ak baxa ñetti couleur yooyu mooy couleuru ndox bu dee ci wàllu liggéey itam commerce dara jiituwu ko ci maanaam lu mel ni métier itam kam xeeti njàng ak yooyu bay day jàng métier wala day jàng xam-xam waaye ba ci gën daal mooy mu sax ci dara lum ci mën a nekk rek mu bañ di baagante ci wàllu liggéeyam bu saxee rek incha allah mbooloo dana ko fekk te lu mu bëgg dana ko am Baye Cheikh yaakaar naa leer na. waaw ah, leer na jaajëf. acca 88 628 19 05 Baye mbokk mi su ko defee foofu ngay jaar daal di agsi ci ligne bi. waaw kay 88 628 19 05 88 628 81 08 mbokk mi foofu ngay jaar incha allah ñu daal di ànd comme ni baay seex Baye seex maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax dafa dafa leer macha allah toujours laaj bu leeree rek tontu dafay daal di leer macha allah 88 628 19 05 sa couleur boo ko indee rek ñu. maanaam sa tur boo ko indee rek bu dee chiffre la itam nag pour nga nëbb sa tur su boobaa tabia du mën a ñëw biddiw du mën a ñëw couleur du mën a ñëw bis sax du mën a ñëw tubaarkàlla waaye li indi tabia mën a génn bis mën a génn waxtu yi biddiw di fenk mën a génn biddiw génn couleur ba ci cuuraay kooku euh, tur lay doon tur ngay joxe tur ngay joxe mbokk mi boo ma joxee sa tur léegi ma wax la cuuraay bi ngay faral di suuroo sa tur nga may jox rek sa tur laaj ma sa cuuraay nit ku ne am na cuuraay nit ku ne am na cuuraay boo ma joxee sa tur léegi léegi ni instant bi bu la soobee léegi nga xam sa cuuraay dootoo làmbatu incha allahu tabaraka wa taala cuuraay bi dafa laaju ci alkawaakib alkawaakib yaani suwal mustar marie sams suura utura uh, utaarit xamar mbokk mi yow mi dégg su la soobee léegi nga xam cuuraay bi gën ci yow nga di ko def bi gën ci sawal wàllu rab loolu dong jar na jar na jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax nit danay utiliser woo cuuraay boo xam ne daf koy tëj baaxul bu fekkee yow yaa ngi amee soal di utiliser woo cuuraayu mustar wala nga amee mustar di utiliser woo cuuraayu mariix wala nga amee mariix di utiliser woo cuuraayu sams déedéet cuuraay dafa am tëraliinu boppam cuuraay dafa am tëraliinu boppam boo xam ne nit ki noonu la ko war a utiliser woo waaye dem ca marché ba rek daal dina jaay ma cuuraay daal dina jaay ma cuuraay waaw yow cuuraay bi yaa ngi koy nokki muy neex rek xëy na waaye du sa bos du sa cuuraay du sa cuuraay mbokk mi kenn ku ne am nga cuuraay cuuraay bi itam ku nekk ñaar nga ci am waaw ku nekk ñaari cuuraay nga am ñaari cuuraay yi ban ak ban la ku nekk ñaari cuuraay nga am waxuma jëmmi ñaari cuuraay kese rek ndax ku nekk maydaan bi tax ñu naan la ñaari cuuraay mën nga ca am ñetti cuuraay mën nga ca am benn cuuraay sax ñaari cuuraay boo ko déggee mooy bu xóoru jal bi ak bu xóoru dafi waaw Muhammad am na bu xóoru jal bi am na cuuraay boo xam ne day xëcc tey jii boo doon ut oto dama bëgg oto am na cuuraay booy faral di suuroo dem wuti ko wallaahi diir bu gàtt nga am ko tey jii nga ne dama bëgg ubbi magasin wala dama bëgg ubbi bitik ngay saa boo xëyee suuroo cuuraay boobu dem wuti ko wala bu guddee bu dee ca ngay doxi soxla si ca nit ka nga suuroo cuuraay boobu dem wuti ko léeg-léeg itam nga ne man dama bëgg tukki yoon sàngam dëkk sàngam moo xam ci dëkk bi la walla ci biti réew la nga cuuraay cuuraay boobu sa yére yi ngay sol wala nga cuuraay ko sa jëmm sol sa yére dem tukki boobu dana neex kooku buxóoru jal bi lañ koy wax bu fekkee danga am loo tiit looy ragal kooku buxóoru dafi lañ ko wax dafu ak jalbu daa am yaakaar naa ñaari baat yooyu nit ñi miin nañ ko loo lool dafu ak jalbu léegi cuuraayul jalbu mooy xëcc loo bëgg te amagoo ko mu xëccal la ko tamit lu baax lool ci yow mu xëccal la ko ba mu agsi ci yow cuuraayul dafu mooy looy bañ muy agsi ci yow nga bëgg ko puus mu sori la kooku la ñuy wax cuuraayul dafu dafu mbokk mi ñaari cuuraay yëpp am na li la koy leeral nag mooy woote joxe sa tur laaj ma ban cuuraay laa laa mën a suuroo ma wax la cuuraay bi nga mën a suuroo incha allah acca xam nga cuuraay daa am bu ñuy wax euh, am na cuuraayu intit am na cuuraayu kibrit am na saarul xittil aswat loolu am na itam damm maay sappo yaani yow ma sula saay kooku ci xeeti cuuraayu rab la bokk am na bu ñuy wax kaafuur am na bu ñuy wax libaanu dakar am na bu ñuy wax maiya sa sa saayila maiya boobu it am na mbokk yi su ko defee am na itam bu ñuy wax jaawi am na uud ak mustaki am na muqil azrax am na itam sufuru am na itam laazan am na itam bu ñuy wax euh, xudul xamaariyu anbar yi yëpp mbokk yi am na ci xeeti cuuraay am na bu ñuy wax it avion mbokk yi boobu am na waaye bu ci nekk nag doo dégg na cuuraay sàngam rek cuuraay sàngam rek nga dem jënd di suuroo boo ko defee danga tëj sa bopp ñaata ñaata nit ñaata nit ñoo tëju ci wàllu wërsëg te fekk na cuuraay biñ doon am dafa gënu ci ñoom xëy na seeni soxna di leen ko cuural rek di leen ko cuural rek waaw te yow xamuloo cuuraay bi wàccuwaay bi xamuloo ban cuuraay la te wute na lool nag wute na lool soxna ñoom xam naa bu neex rek la ñuy daal di fexe ba am ñoom waaye duñ seet bi gën ci ñoom bi gën a baax ci ñoom ñoom duñ seet lool dañuy seet cuuraay bu neex bi rek ñu jël ko di ko di ko cuuroo fekk na booba nag am na ci yoo xam ne day tëj wërsëg bi nga war a na def jalbu boo ko defee dafu rek sa wërsëg day sori te am ko du yomb 88 628 19 05 mais pas kii woote rek am bénéfice u xam cuuraayam déedéet da ngay xam sa tabia xam sa biddiw xam say sarax xam say bis xam sa waxtu xam say couleur xam sa biddiw waaye nga xam itam sa cuuraay bu ci nekk mën naa la koo faram benn par benn bu yàkkamte amul nag ba nga dagg ndax ku dagg rek ñaara ki woote waat day day ëpp priorité ci ki ki nekkul ci ligne bi ki nekk ci ligne moom duñ ko mën a bàyyi nag di waxal keneen ku nekkul ci ligne loolu ñu bàyyi ko xel bu baax ci émission bi kon ku ci bëgg a dugg rek ci noonu ñu toftalee wax bi nga bëgg ñu toftaleel la ko say mbir benn bindal boo yoree bic pour boo duggee di laaj doo ci juum dara maanaam ñu waxal la sa tabia waxal la sa biddiw waxal la sa bis waxal la say waxtu waxal la say sarax ak sa couleur ak say cuuraay mbokk yaakaar naa loolu xeeti juróom-ñaar ñu ngi noonu ba ci doxali ba ci toppit mooy sa doxalinu bopp ci sa wàllu dundiin ci biddiw boobu mu nekk juróom-ñetti mbir yoo xam ne saa yoo duggee rek soo bàyyi xel ñu leeral la ko incha allah bu dee cuuraay bi ñaari façon cuuraay ngay am mooy cuuraayul xëcc ak cuuraayul jañ asalaamualeykum asalaamualeykum allo 88 628 19 05 mbokk mi dégguma ko xam naa moom itam déggu déggante wuñu day def 88 628 19 05 88 628 81 08 Baye Diagne Asrar moom ngeen di jot pour mu leeralal leen seen tabia sa biddiw say waxtu sa bis sa couleur say cuuraay ak say sarax li nga war a saraxe cuuraay ñaari façon cuuraay am na jal bu am na dafu am na saa booy sàkku dara lu mu mën a doon nga xëcc ko asalaamaaleykum waaleykum waaw kilifa gi sant sañt Tuubaa bu baax a baax naka yitte yi alhamdulilah yal na allahuma amin amin ñu bokk amin amin waay yàlla nañ fi yàgg ñun ñëpp ah jërëjëf kilifa gi yàlla nañ fi yàgg ñun ñëpp mbokk mi yàlla nañ fi yàgg ñun ñëpp liggéeyal Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ne rek di liggéeyal sëñ Touba di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall waaw njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na sikar si am na solo maam Cheikh eh, Awa Balla ziar naa la bu baax waaye Serigne Abdou Wadout ibnu Serigne Cheikh Khady Gueye fii ci Mbacke Bawol maa ngi lay bu baax a baax ci Baye Fall gi di la ñaanal sëñ fallu Fall ñaanal leen bu baax a baax yàlla na yàlla guddal seenu fan waaw ñaan yi ngeen ñuy ñaanal yëpp gis nañ ko te itam nag am na solo trop trop ñun itam ñu ngi leen koy dellool di leen ñaanal ndax ab taalibe moom ci digganteem ak sëriñam lam man ci moom lu rëy rek mooy ñaanal ko fanu gudd wu ànd ak wér loolu rek la taalibe man ci lu rëy ci sëriñam ok jërëjëf yàlla na yàlla defal leen ko defal ko njabootuk Baay Faal yëpp ñu ngi ziyaare ñëpp nag jigéen ñi yaay yeeg ñëpp rek bàyyiwuñu macha allah uh, am na am na sama sama benn sëriñ moom muy maam Cheikh Ndaw maam Cheikh Ndaw maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax a baax 88 628 19 05 Baye Lamine maa ngi lay ziare bu baax a baax Alpha Kan Aboubacar tuba Assirou ok sëñ Babacar Diop maa ngi lay ziare bu baax ma Massamba Ndiaye Kër Baye Puy ak uh, soxnaam Ndeela Ndeela Puy ñu ngi leen di ñaanal jàmm.

di leen di leen bége bu baax a baax a baax ak euh, mboolem kilifa yi ni déglu te dañu bàyyi xel bu baax ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp nit ñuy ñaanale ñu nit as ndongo rek waaye ñaar yi moom mën nañ koo ñaan fanu gudd ak wér asalaamaaleykum aleykum waaw kilifa gi waaw ah, ñu ngi ziar ñu ngi ziar naka yi tey alhamdulilah barikaala waaw ku ma seede laa bëggoon waaw. ah waaw kilifa euh, tur wi. Moodu d' mm-hmm. accord Moodu tabia bi dafa nekk euh, dafa nekk euh, naari yu. Mm-hmm. biddiw bi moo nekk samsu. Mm-hmm. bis bi dëppook bis bi mu tàmbalee sept heures huit heures quatorze heures quinze heures. lépp loo xam ne yaa ngi koy sàkku bisu dimanche sunu borom subhaanahu wa taala mën na ko yombal ci yow. couleur bi rouge ak son la du looy sol waaye na bokk ci say matériel na bokk ci say yére ruus ak son bu dee ne ah, Moodu génn na maa ngi doon ñëw ci cuuraay bi am na solo tey dañ ko cee boole tey moom dañ cee boole luñ ci bu daawut boole mooy cuuraay bi cuuraay bi tey moom yaakaar naa ne am na solo lool pour nit ku ne xam sa cuuraay léegi noonu rek lañ koy tënkee tey ndax dañoo bëgg ñépp mën a dugg xam seen seen tabia xam seen bis xam seen cuuraay waaye xam itam daf u jalbu bi am na ci solo lool xamit couleur bi da ci am solo moo tax noonu lañ koy tënke tey bu ko defee kenn ku si nekk euh, mën a dugg ligne bi mën a bañ a xat 88 628 19 05 88 628 81 08 Serigne Modou Cheikh Diouf maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ziar Serigne Alaaji Diouf waa kër baax ci Diouf Lambaay di leen ñaanal di ñaan seen waajur wi sunu borom subhaanahu wa taala yokk leeram taas ñu ci barkeem ak njabootu sëriñ Aline Diouf làmbaay yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm 88 628 19 05 waaye sama sëriñ Alaaji Jiili Njaay Tuubaa neen maa ngi koy ziyaare di ko ñaanal mook soxna am soxna Ndey Jaw ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax sunu sëriñ moom itam di ko ñaanal yàgg fii rek te acca 88 628 19 05 88 ngay def 628 19 05 88 628 19 05 Ndeye Guèye Pram maa ngi lay ziare bu baax di la laaj waa Pram di nuyu waa Pram am na instant bi eh, mi ngi Pram moom soxna Ndeye Guèye Pram. ca euh, yaa faati fay silla maa ngi lay nuyu bu baax ñaanal la fan gudd bu ànd ak wér yaay aada bopp maa ngi lay nuyu di la ñaanal fan gudd bu ànd ak euh, wér tubaarkàlla euh, kon ku bëgg a mucc muccal sa njaboot utal 3 kilos pepp yooyu ak 3 kilos ceeb yooyu loolu aajowut jàng yaakaar naa bismillahi rahmaani rahim loo jàng di jàng di jàng di mën nga ko soxna si mën na ko xale bu ndaw bi mën na ko kilifa gu mag gi mën na ko kilifa gu ndaw gi mën na ko bismillahi rahmaani rahim moom ngay tiim tari ci junni ak téeméer ak fukk ak benn nga njëkk benn def fukk def téeméer def junni nga tofli ko ci fekk yaa ko tiim bi nga koy tari mbokk mi lu gën a gaaw loolu ci mucc ak muccule bariwut te macha allah compliqué wut yomb na lool nit ki mën koo defal boppam mbokk yi yàgg naa faatiya faatiya moom it boo ko dee bind bu fekkee bëgg nga dañal cat ak làmmeñ euh, wàllu bët ak bépp jabar bu ñu la jabar faatiya boo ci boole wa in yàkkaadu waaye dangay ngay wut tàggu segal tàggu segal tàggu segal ngay wut tàggu segal ngay wut wallaahi day dellu ca kala jabar ak lu mu bari bari ay pexe lu mu rëy rëy ay pexe te jabar la nga def loolu yow jabar gému jabar day dëppaat delluwaat ci moom mbokk yi su fekkee juboole am na solo lool juboole ay nit ñu dëng ñu dëngoo da ngay bind subhaana alladi xalaqa al kullaha mima tunbitu ardu wa min anfusihim wa mima la yaalamuun aw wa min anfusihim wa mima la yaalamuun mbokk yi lu gaaw ci jubale ñu dëngoo la ñu dëngoo lu gaaw ci jubale ñu dëngoo la bu fekkee danga bëgg mbooloo mbooloo mbooloo nga bëgg mu bare bare bare bare muy ñëw ci yow te am njariñ lool waaw waaw te am njariñ lool aha mbooloo mu am njariñ lool moom nga bëgg da dangay da bind dangay bind da bind lii ca mbooloo mi dangay bind rabbana innaka jaamiu naas li yawmi la rayba fihi juróom-ñaar fukki yoon bind allahu la ilaha illa huwa la yajmaanakum ila yawmi juróom-ñaar fukki yoon mbokk mi ay aaya la yoo xam ne mbooloo rekk moo ko tax a jóg mbooloo juróom-ñaari aaya juróom-ñaar fukki yoon nga koy bind aaya bu ci nekk mbokk yi boo noppee nga wut juróom-ñaari ndox yi juróom-ñaari ndox yi nga boole ko ak moom ak beneen boo xam ne itam nag xëy na boobu dana compliqué lool nga nga indi ko boole ko ci def ko ci sa kër mbooloo dana fa dëkk sax ñëw te dootuñu fa jóge mukk mukk waaw mbooloo dana fa sax te dootuñu fa jóge mbokk mi lu am solo la waaye bu dee wàllu jubale bi moom subhaana allazi xalaqal azwaaja kulla mimma tunbitul ard ñaar ñu dëngoo moo xam nit ak soxnaam wala nit ak ay rakkam wala nit ak ay doomam wala nit ak njabootam luñ mën a jabootewoo ci moom acca bu jigéen ñëwee ci yow ne la dama bëgg boroom kër man amuma borom kër dama bëgg nga ñaanal ma borom kër danga koy bindal isa sama un ñetti yoon waaye fii nga yem nag kat xan ci ngay yem dafa bari nag loo koy booleel xam naa këlër bët du yomb këlër bët këlër bët moom ngay wut jigéen joo ko defal day am day am boroom kër ci sens day am boroom kër ci sens moom itam juróomi aaya la aaya bu ci nekk danga koy bind ñetti yoon aaya bu ci nekk danga koy bind ñetti yoon beneen bi ci topp itam nga bëgg mucc ci wàllu liggéey dalu càmmoñ ngay wut bul xam boroom nga wut téeméeri dégg sump téeméeri dégg sump dalu càmmoñ bi nag bul xam boroom bul xam kuy boroom wallaahi boo ko defee ci sa buntu kër boo ko defee ci sa buntu kër maanaam matukaay yii muy àndal nga boole kook moom def ko ci sa buntu kër ku fa def liggéey dana ñëw ci yow ne baal ma ndax dana ànd ak natt boo xam ne tànk jéggulu wula natt boobu du deñ mbokk mi bokk na ca su fekkente ne da nga bëgg amee alal bëgg mu yokk te du wàññiku sa alal nga bëgg muy yokk du wàññiku ba ba ngay faatu ba ba ngay faatu doo perte ba ba ngay faatu doo perte kooku maa la ko wax ba ba ngay faatu doo perte am nga alal bëgg nga ba ba ngay faatu doo perte da bind la xalqu samawaati wal men akbaru min xalqi naas walakin aksara naas la yaalamuun ñaar fukki yoon ak ñaar adat boobu adat boobu ngay bind acca pepp ngay wut pepp lu mu tuuti tuuti juróom-ñaari pepp mbokk mi nii nga koy tegalantee dangay wut juróom-ñaari malentaan juróom-ñaari malentaan da koy wut juróom-ñaari doji teen bu bënnut bu mësta bënn gas nañ ko waaye bënnut ki amee alal te bañ perte moom laay waxal tey liggéey nag bu baax a baax a baax ndax lii soo ko defee wërsëg wi day mel ni ab taw waaye doo perti te ba kera ngay sàngoo suuf acca mi ngoog euh, danaa la indil ay tegtal ci wàllu bët bët wala ay tegtal ci wàllu waxu waxu day bari lool instant bii ñu toll maanaam fi sa bëli commencé di metti boo dee wax wala yu demee ni ki noonu wala sax doo dem ba mën a wanaas léeg-léeg nit ki day toll foofu mocc gi mocc gi day am solo lool des na la ci baaxe ñaari moccin yooyu muy ci wàllu wàllu bët ak ci wàllu waxu 88 628 19 05 ñu jëlaat auditeurs yi continuer àndaat ak ñoom incha allah buñ fàtte ne wàllu cuuraay mi ngi fi buxóoru jal bi am na buxóoru dafi am na bu fekkee eh, Mouhamad moo woote wala ibrahim moo woote day daal di xam léegi cuuraay bi xëcc njariñam mu di ko def asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw soxna si bisimilah 88 628 19 05 mbokk mi foofu ngay jaar bu fekkente ne ñaar ñu dëngoo lañ ñaar ñu dëngoo ñi dem nañ ba ci nit ak boroom këram dem na ba ci nit ak wujjam dem na ba ci nit ak doomam dem na ba ci nit ak baayam wala nit ay magam ay rakkam ñu nekk ci kër gi dëngoo kenn ku nekk di tibbantaay tànk wala bokkuñu kër sax mbokk mi bindal loolu ma la wax asalaamaaleykum waaw kilifa gi ñu ngi ziyaare bu baax mbokk mi dégguma tubaarkàlla subhaana alladi xalaqa al azwaaja kullaha mima tunbitul ard asalaamualeykum waaleykum salaam ñu ngi ziar sëriñ bi alhamdulilah bisimilah chiffre huit chiffre huit waaw ma ne chiffre moom nga jël danga am mbégte naqar boo xam ne danga dem ba wan ko gannaaw waaye nag dafa am benn jigéen boo xam ne mi ngi ci xel mi waaye dafa am tawat yow it am nga jëflante mbooloo waaye néggandiku da ci am mooy xaarandi tuuti dana baax nag bu fekkee yàkkamti amu ci da nga am benn liggéey bu lay dab nag waaye boobu itam du yegg si ndax sarab ah génn na chiffre huit tabaarkàlla Baye léegi soo wote rek am lu leer naa ñi ci saw yaram incha allah tabaaraka wa ak lu leer naa ñi ci li ngay laajte 88 628 19 05 ngay def 88 628 81 08 subhaana allazi xalaqa al azwaaja kullaha mima tunbitu l ard wa min anfusihim wa mima laa yaalamuuna jeex na mbokk mi wallahi lépp luy xeetu juboole nit ak soxnaam wala nit ak doomam wala nit ak ay yaayam wala ay baayam lu ci gaaw la ci xeetu juboole boobu mbokk mi soo bëggee jigéen am borom kër da bind aay bi ñetti yoon isa samaawun sàqat moom ngay bind waaye itam danga nga bindaale zuyina li naas soo noppee da ngay wut xirxatul abyat xatul abyat kooku da ci am alxataaf yaa ni këlër bët kooku itam yëpp mbokk mi soo ko defee koo ko defal koo ko defal dana am boroom kër koo ko defal muy góor dana am jaba dana am soxna acca nga bañ ko dugal sa sa kër liggéey sa kër kër yi dañ leen di aar kër da nga koy aar kër ku ne fay ñëw kër ku nekk fay nekk kër kenn ku si nekk am na wàccuwaayu aar ko tànk yaa ngi yeewee ca kër ga mën nga ko aar fexe ba ab liggéey du fa dugg fexe ba liggéey bu mu fa buñ fa def mu toj loolu dafa am solo lool ci wàllu kër fexe ba liggéey du fa dugg fexe ba liggéey bu ñu fa def mu toj utal dalu càmmoñ rek dalu càmmoñ yomb na lool daalu càmmoñ ngay wut bul xam boroom nag bul xam boroom daalu càmmoñ bi bul xam boroom mbokk mi wallaay soo ko defee matukaay yi ci war yépp nga laxas ko ñëw ba ci sa kër sa buntu kër wala ci biir kër gi boo duggee rek fi buntu bi fi ñuy jaare fépp ayca 88 628 19 05 salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kilifa gi ñu ngi siyaar. delloo siyaar na nga waaw. kay tabia bi dafa nekk naar yu Idrissa. Mhm. biddiw bi nag mariix lañu koy wooye mhm. bisub talaata la moom lay fenk sept heures huit heures ci talaata ji mooy mardi toujours dafay jubu ci yow looy tàmbali di ko def wala ngay tukki wala nga bëgg a sanc mhm. su ko defee couleur bi nag euh, rouge ak euh, son la ñaari ñaari ñaari couleur yooyu baax na ci yow du looy sol waaye na bokk ci say yére na bokk ci say matériel mhm. bu dee ne biddiw boobu la sëriñ bi muy mhm. mariex euh, cuuraayul jalbu maanaam bu fekkee da ngay xëcc dara bëgg mu ñëw ci yow utal sandal asfaru ak libaanu dakar mhm. boo dee xëcc dara bu fekkee da nga am looy ragal nag mu ñëw ci yow mhm. damm maa ay sama yow ma sula sa aw bëy ngay wut nga rendi ko nga tuur deret bisub talaata mhm. lépp loo ragal incha allahu doo ko gis lépp loo bëgg da ci jot bu soobee sunu borom ayda lay xool ayda ak euh, idrissa ndax mën nañoo ànd ñoom ñaar wala mbiram rek wala ci wàllu sëy ah ci wàllu sëy waaw kay Idrissa ci wàllu nika ak uh, ayda dafay taxaw ayda day taxaw six adadu six Idi day taxaw cinq six sept huit mu des uh, deux six sept huit neuf reste six ñoom ñaar su fekkente ne bala ñoo dugg ci wàllu sëy dañuy génne saraxu mètre mètre u tiise moom la ñuy génne juróom benn mètre moo ci gën sëy bi chiffre bi daal lëndëm moo tax bi des ci ñoom ñaar ndax ayda suuf la idi dafa nekk naari yu sawara su génnee lool rek mën nañoo sëy jaajëf su génnee lool rek mën nañoo daal di sëy su génnee tiise bi mën nañoo sëy acca tànk génnewu ko nag bu mu ca dugal dara su ca génnee nag ba noppi mën na caa dugal lu mu ca bëgg a dugal waaw ah, ma xool chiffre 6 ñu xoolal ko chiffre 6 waaw kay mi ngoog chiffre 6 7 mètre la juróom benn mètre yére acca ñu jël auditeur boobu asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk mi daa mel ni génn na idi mi ngi noonu kon 88 628 19 05 mbokk mi mën nga jaar foofu ñu jël la ci kaw bu la neexee ñu jël la ci suuf itam bu la neexee acca sëy daa am bu yoot am na boo xam ne danga nga naan téeméeri puso am na boo xam ne da nga naan ko yàpp am na boo xam ne da nga ko paaka noonu ngay def noonu ngay def noonu ngay def noonu ngay def ba chiffres yi mat chiffres yi des ci sëy mat sëy bu baax am na sarax sëy bu banit am na sarax bu baax bi sarax si da koy gën a baaxal bi nga xam ne baaxul dafa nekk naas sarax si day effacer la ca nekkoon naas moo tax bul tiit bul ragal soo woo soo amee sëy boo xam ne chiffre ba ca des gënut génneel say sarax rek day mel ni dara mësta xew mbokk mi moo tax ñu génneel la sarax sadaxaat yi sadaxatul bu yóot boo déggee sadaxatul bu yóot mooy yooyu tubarkàlla kon sëy bu mën a doon ak lu mu garaaw garaaw rek boo xamee saraxam di ko def sarax booba dana dindi gaaf ga ba mu set ba jàmm rek mooy doxati ca sëy ba mbokk xam nga chiffre en baax na ci sëy chiffre deux baax na ci sëy chiffre sept baax na chiffre cinq baax na chiffre huit baax na waaye xam nga ne chiffre trois taamu wuñ ko ci sëy chiffre quatre taamu wuñ ko chiffre six taamu wuñ ko chiffre neuf taamu wuñu ko mbokk mi su ko defee nag yooyu am na ay sadaxaat quatre chiffres yooyu nga ne taamu wuñ ko am na ay sarax sarax yooyu day defar waaye du yàq boo ko xasee defar rek boo ko xasee génne sarax yooyu daara nekkutu ci sab sëy chiffre yee ma la wax juróomi chiffre yee itam sarax bi na xam ne moom sëy ba baax na ba noppi day gën a baax maanaam day gën a neex tubaarkàlla loolu lañ jubloo ci sadaxatul bu yóot yi 88 628 19 05 da lay wax ne la euh, euh, isnayni yaani isnayni kooku njaboot 9 naas 4 firaax saba siyaad 5 barak sala silsila euh, sitt fitna waahid wuddun kadir yaani xayru nas beneen bi tamaaniya am na tamaane bi ñu ko jox xissa mu nekk iddatul iddatul wafaat ndax ne dafay nekk ngàntal bari waa na sëy yoo xam ne dafa gàntal waaye seen borom xamu ko seen borom laaju wala sax yéex na koo xam bu ko defee tolof tolofi sëy ya day continuer rek daanaka bañ la takkee nga commencé am ñàkk wér-gu-yaram bañ la takkee nga commencé ñàkk jàmm kii itam ba mu takkee la commencé commencé alalam commencé di yàqu di yàqu di yàqu su ko defee boobu nag dafa nekk xëy na maasóor te fekk xamu ko mooy gàntal sëy bu gàntal la waaye fekk na seetlu ko ndax dafa toppan ak bëggam rek muy ku góor ki muy ku jigéen ki loolu day faral di am 88 628 19 05 88 628 81 08 Baye Diagne Asrar acca soxna uh, kilifa gi kilifa gi day laaj mu ne ko da nga bëgg a def nit ñi waaye amoo sens ñu bari dañu lay wor del bu secret di nga am jafe-jafe ci xaalis bu metti loolu sa amee njaboot bala ñu la jariñ dina yàgg waaye kenn ci ñoom mooy tabe ña des moo lay yor sa feebar mettitu biir la ngelaw moo la solu sa bopp sa bopp di metti mu ne nag am na koy àndal ci wàllu jigéen da nga ci def xaalis waaye dina la teg naqar di nga mës a nekk koo xam ne ci yax bu rëy lay bokk di la jox xaalis di nga am it ay tukki yu bari lool waaye doom bu góor bu siiw su boobaa mu ñaan lu wala nga wutal ko ñaan ci wàllu cat dina baax nag danga nga mës a tuxu feneen xibaaru jàmm bu la fay fekk lu mel ni xeetu ngénte a xibaar lu mel ni ay jigéen liitam jigéen bu feebar la waaye mën naa am wér mbokk mi saa boo ko wutalee ay ñaan rek taxaw ci incha allah sunu borom saafara ko jërëjëf 88 mën nga jaar foofu jël siifar it ñu seeta la asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kilifa gi. ñu ngi ziar Baye Ndiaye. ñu ngi ziar bu baax a baax. naka suba ah, ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. jël nga chiffre 4. Ah. d' accord chiffre euh, sang bi dafay leeral ci say mbir lu bare bari nee na yow ci sa jëmmi bopp. allo. waaw maa ngi dégg. yow ku yéemu ci sa bopp ngay doon ku cat gaaw a jàpp ngay doon daa bari ñu la bëgg lool waaye di nga am bayre nee na itam nag jigéen bu lay jox dara waaye lam ci jublu mooy xëcc la ci boppam da nga dem nag bañ fal la njiit ay nit nga jiite leen di àtte waaye am na góor goo xam ne noonu la taxawee di yàq rek dina la yàqal di nga mës a tukki nag am xaalis gudd fan feebaru tiitaange nag mi ngi ci yow muy diggante loo ragal sa bopp di metti sa yaram di ruux sa sarax cat la ganaar gu ñuul ak gu weex ak gu xonq mu ne dana am koo xam ne it mën ngeen a nekk ci wàllu sëy waaye ak tàggoo mën na feeñ bëggantewaat waaye nag am na ku la war a lekk sa xaalis di nga am doom ju góor waaye doom ju góor jooju it mën na am nattu ci ak ndawam waaye yow sa jëmmi bopp nag sa nooni bopp day féetewoo toujours nag ci sa bokki bopp am nga rab bu soxor nag dafa lay faral di garde lu baree bari nekkoon nga ci barab waaye dafa mel ni barab boobu nekkatoo fa xëy na fi nga nekk nag gën baax nag waaye bañ ko noonu déggee itam dañu lay wor ndax da nga ko bari la lool am na koo xam ne dana la jabar bu jàppee ñaareel ni nga koy xamee mooy ndigg luy faral di metti ak wóom yuy faral di metti te soo hmm. fajuwul da ngay dem ba niw doole ci wàllu sëy mu ne yow nag na ngay jëfandikoo saa su nekk rek lu mel ni meew kooku baax na ci yow euh, incha allah te moytu nag pexem jigéen bu baax a baax a baax loolu nee na da nga am déplacement yu fort yu baax ànd ak gudd fan lii tam koo xam ne seen diggante aman na jafe-jafe muy góor wala muy jigéen acca 88 628 19 acca ñu jël keneen ci ligne bi am na kuy yëglu 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga def 88 628 81 08 ñaari numéro boo ca jaaree agsi ci rajo Baol Média FM 88 628 81 08 acca soxna Ndeye Dégène maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax di ziare Pape Seck bu baax moom it ak euh, mbay Ngom ñu bàyyi xel rajo bi la ak soxnaam soxna Faty juuf foofu ci Touba Thiawéen waaye sunu benn soppe fële ci Ndindi moom it Talla Sow ñu ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal jàmm ok manu gudd wu ànd ak euh, jàmm ak mboolem mboolem soppe yi xarit yi am di jàmm yi ñëpp. leen koy ñaanal 88 ngay def 628 19 05 88 628 19 05 su ko defee rek ñu mën laa xoolal lépp loo xam ne yaa ngi koy leeralu incha allah bu dee ci ci suuf la itam ñu jël la ci suuf ndax ñaari ñaar yëpp am na ci kaw am na ci suuf am na bu dee ci wàllu sëy bi rawatina nag am na ñoo xam ne du ñu bëgg ñaare di déclaré wu ca kaw waaye su ko defee rek mën nga déclaré wu ñu jël la ci suuf su ko defee nga leeral lépp loo bëgg a leeral incha allahu tabaraka wa taala rawatina nag niñ leen ko waxe woon ci njëlbeen gi ci juróom-ñaari biddiw yi benn bu ci nekk ak cuuraayu bu xóoru del bi ak cuuraayu bu xóoru bu xóoru dafi am na ko mustar am na ko marix am na ko samsu am na ko suurat am na ko utaarit am na ko xamar am na ko boo xool ci wàllu naas dañ naan sool naas lay taxawe mustar saad lay taxawe mariix naas lay taxawe sams saad lay taxawe sóodat saad lay taxawe otaari mumtazija lay taxawe xamar saad lay taxawe kon gis nga ne mm, benn biddiw muy mustar ñaari biddiw muy sams ñetti biddiw muy sóorata ñeenti biddiw muy xamar yooyu yëpp saad lay taxawe waaye boo xoolee ñetti biddiw yi day mel ni am nañu ay lëndëm lëndëm 88 628 19 05 asalaamaaleykum. maaleykum salaam waaw kiraa bi nga jël ko ci suuf. Baol Medias FM

acca mbokk mi doon naa la jox euh, ñeenti garab garab yi itam jafewut xay ngay wut walla nga wut sàngol wala nga wut bakkiis euh, wala nga wut euh, papaya ñeenti garab yi boo ci am rek mën naa faj li morom ji di faj bu fekk wàllu siburu la yow góor gi nekk ci sa kër boo ko dégluwut it xale baa ngi koy déglu wala soxna si mu ngi koy déglu utal benn xas bi rek du doon sunguf nag xas lay doon sunguf dafa xaw a dansé tuuti waaye xas bi lay doon tuuti rek xas bu ndaw bi rek lay doon xoojal ci ndox rek yi nawet bi nii ñun toll nga fexe ba sa waa kër ñépp di ci naan gone yi di ci naan si siburu da leen di tiim dañuy dégg rek ñu naan nawet ba nawet ba dañ koy dégg waaye ñoom duñ siburu waaw benn xasu xay rek moom ngay jël benn nga def ko ci ndox rek teg ko fenn rek ñu di sa naan xale yi naan ca naan ca bu baax a baax mbokk mi lépp loo xam ne xeeti picc la wala xeeti taab la wala xeeti ay ërë la wala ay góom la buñ dee naan ca ndox moomu danañ ca mucc ca nawet boobu ni mu wallaabale ci xay bi noonu la wallaabale ci bëkkis noonu la walaabale ci sàngul bi noonu la wala bale ci papaaya bi papaaya bi nag am na ci ñu gënal bu ñu ba ñu ko gënal am na ci acca ñu jël auditeur boobu 88 628 19 05 asalaamaaleykum waaw kilifa gi Baye Ndiaye Mbacke Balla ñoo ngi siyaare ñu ngi siyaare bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah nax nu ko saalik sant bu baax a sama waa tur bi. Cheikh. Cheikh Marix moo nekk biddiw bi. talaata lay génn sept heures huit heures quatorze heures quinze heures. couleur bi itam nag day taxaw weex ak baxa ak bula ñetti couleur yooyu. Mm. bu dee sarax yi nag lu weex soow wala suukar wala nga génne laax benn dabu laax baax na. cuuraayul jalbu yi kooku sandalu as asfaro cuuraay bi naa naan asfaro libaanu Dakar ak libaanu Dakar ñaari cuuraay yooyu baax na ci yow lool. libaanu waaw libaanu Dakar ak asfaro ak asfaro. léegi boobu pour pour boo amee looy xëcc ci yow la loo amee looy xëcc ci yow pour mu ñëw. bu fekkee am nga looy dafu def dafu looy looy puus pour mu bañ ak si ci yow loo ragal. kooku da ngay wut euh, bëy benn bëy rek benn bëy nga rendi ko su talaata lépp loo ragal dana la sori su talaata nga saraxe yàpp bi wala nga togg ko saraxe ko bu loolu jafee nga wut cuuraay bi ñuy wax avion avion waaw cuuraay boobu mooy ax boon ax boon la tudd cuuraay bi ax boon boobu boo ko laajtee jaay ko cuuraay dañ la ko wan su ko defee nga cuuraw nga suuroo ko moog béy bi benn la rek béy bi moom deret ji pour lépp loo ragal mu sori la moom nga si jublu cuuraay bi loolu nga si jublu jaajëf acca mi ngoo 88 628 19 05 ax boon cuuraayu ax la waaw koy euh, su ko defee damm maay su yow saba yowma sula sa kooku biddiw mareex moo koy nekk euh, saadul xital aswat am na saadul xital aswat kooku cuuraay la moom it saadul xital aswat am na beneen boo xam ne itam nag 88 628 19 05 ut mustaki muqilu azrax libaanu dakar sufru laazan libaanu dakar zaila maaya yaani maaya saila kaafuur 88 628 19 05 asalaamualeykum démb ca mi ngoog ci suuf am na ci kaw am na 88 628 19 05 88 628 81 08 ñu jëlaat euh, auditeurs yi ci kaw am na ci suuf am na am na ci wax joo xam ne ci suuf lañ ko mën a wax waaw am na am na wax joo ci suuf lañ ko mën a wax waaye léppay leer nag léppay leer kin jël ci suuf dañ ko jox solution ba mu kontaan incha allah solution rek moo ci am solo ay jafe-jafe moom am na nit ñi dañ koy dund waaye jafe-jafe it am solution baax na ci ndax solution bi wax wax koy dindi wax noppi waale ko mënu koo dindi waaw jafe-jafe bi mënu koo dindi baax na lool na ku mën a muñ waaye dafa am loo xam ne mu su ko muñaale faw nga weer ko ut ci saafara ci ay ñaan wala nga ut ci saafara ci ay conseil waaw ñaar yëpp la ñuy boole ñaar yëpp la ñuy boole day am ay ñaan yun lay jox wala mu am ay conseil yuñ lay jox ñaan yi en direct lay doon bu la soobee defal nangam defal nangam pour sa jafe-jafe sa digganteeg sa soxna wala sa digganteeg sa borom kër wala sa digganteeg sa société wala defal nangam defal li génne sarax sàngam waaw mbokk mi yu mel noonu rek la jël ci kaw ak jël ci suuf ñoo ci yem acca yéen a ngi ànd ak Baye Diagne Asrar tey jii gis nga euh, kawaaki bi dafay am ay ay biddiw xam nga bu dee kaw kab bi dafa nekk dafa nekk suwal ci misaal kooku naas lay taxawe bu fekkee dafa nekk marié kooku naas lay taxawe bu fekkee utaadit la kooku mumtaz zija lay taxawee kon ñaari biddiw rek ñooy wane woo naas lu ci mel ni samedi ak lu ci mel ni talaata moo tax ñaari biddiw yooyu day dëppook léeg-léeg nit ki dañ ko naan riyaaru ayaami ka yow mu nàngam waaye nag ya taq yi yow mu nàngam bis boobu muy moytandikuloo boo ko dee seet lépp ca bis ya mooy yow mu bi nga xam ne day dëppook suwal la ca ëpp itam mooy yow mi bi nga xam ne day dëppook mariix samedi wala mu dëppook wala mu dëppoog talaata ñaare moo ci gën a bari mbokk mi su ko defee dañ lay wax dee ko moytu moytu nag euh, sikkantewul ne mën nga cee def dara waaye moytu gi dafay ëpp solo pour pour dara ban la cee dab moo koy faj rab soratu jinni ba mu jeex nga wut koraay nga wut koraay moom dana faj rab bu baax a baax a baax baax dana faj rab euh, maanaam seytaane dana ko faj ku seytaane jàpp ba tey boo defee faatiya bi faatiya bi moom it na koy boole aaya bu ne nga def fàllaxin naas moom it des koy naan di ko sangu moom it dana faj rab moom it day am ay reen yoo koy booleet reen yi beneen bi maradul majhul lay doon nga xam wala xamoo basmala téeméer yoon naan ak sangu moom it not not nit not nit wala soo bëggee mbooloo mbooloo mu lay jariñ dangay wut juróom-ñaari reen yi was wasoor da ngay wut juróom-ñaari reen yi waswasoor mbokk mi su fekkee bëgg nga am mbooloo mu lay jariñ mbooloo moom la ca gën mooy mu lay jariñ rek nga amul ñàkk jàng mën nga ko wax dala topp wax ju bari nga sonni ci lool amoo ci benn solution génnal ba ci àll ba rek nga gas sampax gas sampax waaw ak wax ji lu wax waxe ak fu mu mën a féetewoo lu mu garaaw garaaw a dee nga ñaan sa soxla nga tufli ci paame sa lor nag na dugg ci paam bi bu dara bu dara suut bu dara tufli ci ci kaale bi nga jël suusu suusu màggat si féetale kaw féetale suuf jël suuf su bees si féetale ko kaw boo koy suul wax de foofa lay yem wax bu mu mën a doon rek wax bu mu mën a doon foofa lay yem waaw bu mu mën a doon ci këru àdduna amul jàng amul ñàkk jàng ñépp mën nañ bu dee ci wàllu cat ba tey nga bëgg cee mucc moom it soo demee ba ci tefes walla ci géej tefesu géej da ngay jënd sa paaka bu bees teq bu bees teq moom nga yóbbaale. ca 88 628 19 05 bu dee da ngay bay bay ci tool yi utal rand rek rand cégg bi ngay wut céggu rand céggu rand ngay wut nga daal di ñëw daal di bind antum tasraxuunahu am naanu saari yoon nga xool adatu adat bi da ci am solo lool adadu yow mi ya yow mi bis bi nga xam ne ca nga ko bëgg a suul foofu ca barab ba ca tool ba tool la boo xam ne dana meññ ku am ngaam ku amutin nga am noonu lañ def ca tarjumaanu liggéey ba ku am nga am ku amul ngaam bu dee gerte la dana meññ bu dee dugub la dana baax dana barkeel bu dee sëb la bu dee basaab la lu mën a doon dana barkeel rand lañ koy liggéeye antum tasroona am nanu saarixuun su ko defee soo booltaate wooyu yooyu rek wut sa benn toile bu mag rek wala sa benn ndab bu mag nga def ko ci bu dee sa fas nga amee wala say nakk ngay bayee fas wala ngay bayee nakk te bëggoo ñu daanu ci say loxo maanaam ñu faatu ci say loxo caxat lañ koy defare waaw kooku ci caxat lañ koy liggéey su fekkee bëgg nga saw fas du daanu ci say loxo loolu concerné ne sax ñu nekk si dëkk bi yor seeni fas di ci liggéey te bëggoo mu daanu ci sa loxo saa boo ko amee te bañ mu daanu ci sa loxo rek ci caxat ci caxat lañ koy liggéey incha allah rawatina baykat bi yore ay nagam di bay wala mu yore mbaamam di bay wala mu yore ay fasam di bay te bëggut benn daanu ci 88 628 19 05 bi ci toppi tukkikat bi di jaar ci géej gi kooku it am na benn ndomba boo xam ne saa boo ko takkee doo dee ci ndox mukk ci àdduna dee ci ndox ndox du la rey ndox du la rey jaww du la rey comme yéeg ci avion mu daanu wala nangam-nangam kooku du am kooku du am bu naree am yow doo ci yéeg bu naree am doo ci yéeg ñu jël auditeur boobu door a diggante boobu salaamaaleykum waaw sëriñ ningi maa ngi ziar ñu naka yite 88 628 19 05 mbokk mi jaaral foofu rek ñu labirante ci incha allah 88 628 19 05 88 628 81 08 suhrata la euh, ci misaal euh, sang bi biddiwu suhrata la la amee tubaarkala ajjuma nekk euh, bés bi mhm. bu dee ci wàllu ci wàllu

salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kilifa gi. waaw yéen ma ci suuf. aca mi ngoo 88 628 19 05 jaaral foofu ñu daal di jëlaat euh, keneen wala kuñ jël te leerut li ñu lay wax leerut nga jaaraat foofu ñu gën koo leeralaat ñaar yooyu rek moo fi nekk wala jëlaguñ la nga jaar foofu ñu jël la 88 628 19 05 su ko defee suuf am na ci kaw am asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. waaw ah, ah, fay biram. kooku. man na soxna Degen. ah soxna Degen. waaw. maa ngi lay bu baax. alhamdulilah. baarikàlla ana soxna yi. ñu ngi fi. ñu ngi laay. baarikàlla. daa ma seetal. d' accord soxna Degen dafa Degen mu ñu xool euh, adat bi dafa taxaw ci turaabiyu mooy suuf am na biddiw bu ñuy wax utaarit njël beenam day dëgër ak mujj ma yomb lépp lu muy duggit noonu lay demee maanaam njël been gi dana dëgër ba bu bu bu yàkkamtee mën naa bàyyi waaye bul bàyyi del sax bis bi àllarba lay tombeel sept heures ah soxna déggan génn na ñu xaar mu dellu siwaat acca maa ngi ziyaare Alburi Alburi ak soxna Xadi fële ca Maroc dañ leen a gëj a dégg lool nag Albury xam naa képp ku am ci moom xibaar wala nga nekk foofu Maroc tey déglu ci YouTube bi wala ngay déglu Albury ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak soxna Xadi asalaamaaleykum. waaw maaleykum. waaleykum waaw. maa ngi ziar. maa ngi alhamdulilah. baarikàlla. maa bi. Mm-hmm. awa dafa nekk euh, masala nitu nitu suuf la taxawee biddiw awa suurat suurata la lay lay wuyoo àjjuma mooy bisam li tàmbalee sept heures huit heures quatorze heures ci àjjuma ji moo dëppoo ak euh, ay mbiram moom nag euh, biddiw bu baax la yor képp koo xam ne yore na ko te sàmmanteeg àq yi dox sa digganteeg moom sa kër dara du fa jeex te itam nag barke dana am xéwal dana dafa nekk koo xam ne itam nag suxurata boobu am na cuuraay boo xam ne moo gën ci moom pour buy xëcc njariñ pour mu agsi ci moom kooku jaawi lay wax moom moo gën ci moom ak libaanu dakar ñaar yooyu moo gën ci xëcc njariñ ci moom bu fekkee dafay puus lu mu ragal kooku na wut libaanu dakar kese kese bu mu ci boole jaaw yi libaanu dakar kese buy dàq lu mu ragal su ko dee taal ci néegam wala ci këram wala mu di ko suuroo moom lépp lu mu ragal dana ko sori bu dee wàllu couleur la te mu soxla woo ko kooku couleuru weex bu la baxa mooy couleuru suuf su ko defee moom mën na sol yooyu mën na ko boole ci matériel am dana am jafe-jafe yi nag ci néegu sëy kooku biddiw suurata dana ko am waaye mbiri boppam rek lay doon ñaare la ci ëpp ndax benn jigéen mën na koy wor wala sax jigéen di bëgg a jël palaasam ak yu xeeti liggéey ak yu mel noonu ñaare danay feeñ te it yaakaaram day tas si ñu bare bari rawatina nag ci góor ñi la ci gën a bari maanaam fa lay féetewoo ba tey itam yaramam dana am ay tawat yu ca nekk waaye mën na caa wut ay saafara tawat bi mooy luy baagante ci dox doxaan ci yaram bi mën na dem ba jàpp ba di jàpp tànk yi rawatina digg bopp bi yenn saa yi sustu ngoon yi nag lay gën a tee raw soxna si loolu riixu tabia lay doon maanaam dafa bokkaale ci sa tabia mën naa saafara wu nag ba génn ba set sarax bi acca sarax bi lañ la doon leeralal 88 628 19 05 boo desee ñu leeralal sarax bi sarax bi rek moo ci des salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku soxna Degen. waaw. waaw kay sa biddiw boobu day. boo dee boo dee wut cuuraay boo dee cuuraay boo xam ne dalay lay kooku da ngay wut muqilul azrax moom ngay wut boo ko laajee rek dañ la ko jaay beneen bi yet saay la moom ngay wut bu fekkee looy puus pour mu sori la du agsi ci yow nga xam ne danga nga koo ragal sa yaakaar yuy tas yi dana dana deñ bari na looy yaakaar muy tas bari na gént yooy gént di ca am tiitaange wala looy ragal waaw waaw kay su ko defee yow sa wàllu rab dafa soxor te daf lay yàqal lu bare bare da nga koy jàppee leneen sax. su ko defee boo mënee génne ab sarax nag ganaar lay doon gu weex ak gu ñuul ñaari couleur yi ganaar yooyu lay doon. doo ko rey nag da nga koy jënd nga saraxe ko noonu soxna Degen. 88 628 19 05 88 628 81 08. acca saa su ne rek eh, mbokk mi mën nga ànd ak Baye Diagne Asrar 88 628 19 05 saa su ne rek mën nga ànd moom foofu. asalaamaaleykum. allo Baye waaw maa awa. waaw soxna awa pepp ak ceeb benn kilo ba ñetti kilo loo ci saraxe baax na bisu àjjuma. pepp ak ceeb. waaw jaajëf soxna awa jërëjëf. jërëjëf soxna awa. acca 88 628 19 05. mbokk mi tur bi da ngay joxe sa mbir yëpp ci la aju sa tur rek da ngay def 88 ngay def soo ma bëggee jot 88 ngay def 628 19 05 mbaa nga def 88 628 81 08 88 628 81 08 soo bëggee mbooloo mu lay jariñ mbooloo mu lay jariñ mbooloo mu lay jariñ utal juróom-ñaari reeni waswasoor benn reenu sandandur benn reen rek derub jàpp wallahi mbokk mi nga wut derub jàpp wut lii ak lii boole ko ak moom muy ay mbir yoo xam ne danga koy jëfandikoo ci sa wàllu kër mu nekk nag yoo xam ne mbooloo dañ mën di sutura la woo saa buñ xëyee boo koy def nag bu kenn gis da ngay bàyyi ba xaaj guddi ba ñépp nelaw nga bind saar bii di isa zulzulatil ardu zilzalaha mbokk mi nga bind ko bindaa suratu insaan alaate alal insaani hiinun min addahri nga fexe ba sunu borom subhaanahu wa man ma nee la ba nga am njur njur njurul martu njurul martu nga am ko maanaam nga fexe ba roof ko roof ko njurul martu mooy lu ñuy roof ci ab martu mbokk mi bant lu ñuy roof ci ab martu asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk mi génn na mbooloo mu lay jariñ laa lay wax de su fekkee bëgg nga ko mbooloo mu lay jariñ ak ku mën a doon ak ku mën a doon te yëngutu ci wàllu mbooloo mbooloom àdduna la wala mbooloom diine la asalaamaaleykum. waaleykum waaw kilifa gi. laa bëggoon di sëriñ sëriñ. Hmm? sëriñ sëriñ. sëriñ nga ba gën a leerlu sëriñ. waaw. kay sëriñ moom dafa taxawe ci biddiw boobu ñuy wax mariix bisab sëriñ talaata lay tombeel sept heures ñaari heures yooyu lay génn sept suba ba huit mu suux deux heures bu jotee ba trois mu dellu suux moom nag couleuram weex ak bula ak baxa ñetti xeeti couleur yooyu moo gën ci moom ci matériel am moo gën ci moom ci wàllu colom itam am na itam nag ay sarax yu gën ci moom mooy soow wala suukar wala ab gàtt gàtt bay day weex bu dee xar la bu dee bëy la du rey bu dee ganaar lay day weex da koy saraxe noonu bu dee ci wàllu cuuraay euh, asfaro cuuraay bi ñuy wax asfaro ak libaanu dakar kooku buy xëcc dara lu ko sori tam bëgg mu agsi ci moom loolu lay faral di taal di ko suuroo bu fekkee dafa bëgg nag lu mu ragal mu sori ko kooku day wut bëy mu rendi ko bisub talaata wala sax bu fekkee bëy boobu dana diis ci moom mu wut cuuraay bi ñuy wax ax buun cuuraay boobu baax na ci moom lool ci dafu maanaam fegal ko ay lor yoo xam ne mënal na agsi ci moom te du agsi ci moom sëriñ leer na

ci kaw am na ci suuf am na mën nañ laa jël ci kaw mën nañ laa jël ci suuf boo defee 88 628 19 05 mbaa nga def 88 628 81 08 acca ku mu neex ñu jël la ci suuf waaw kay bu la neexee boo wootee nii ma jël la suuf nga expliquer li nga bëgg a expliquer ñu tontu la ci acca eh, xam nga bu fekkee soxna bi dafa am biddiwu mariix am na nag am na soxna yu am biddiwu mariix kooku day nekk eh, gaaw a mer gaaw a deltu gannaaw waaye nag ku masla ak moom yaa ko moom ku diisoog moom not ko moom bu xu bu maanaam bu ko wax dikkalee day wut kiiraayul boppam lu ko yiir ndax wàllu bët baaxut ci moom géejit baaxut ci moom moom soxna boobu mooy mariix bu jigéen nag lañu wax waxuñ mariix bu góor kuy ànd ak moom soxna soosu day mujj nekk am noonam ku ñu bëgg lay doon ci akaabir yi waaye day gis tam ay tiitaange yu baree baree bare am cër ci jënd ak jaay moo xam xam na ko wala xamu ko waaye cëram la xeeti masruwaat yi itam cëram la xeeti procès yi waaye talaata baax na ci moom altine lay moytu bépp palaas boo xam ne bunt ba sawu la ubbee palaasam la kooku bu dee liggéey na fexe ba place bi muy liggéeyee mu am bunt saw bu lépp mënta ne bu bunt ba mënta nekk bu saw it mu fexe ba yett fa bu doon fenêtre itam day baax lool ci wàllu liggéeyam mooy koo xam ne jigéenu mariix la day siiwe ci mbir itam waaye ku ñuy iñaanale ci pàggu téefam day gént gént yu bari 88 628 19 05 aca mbokk mi ngi noonu su ko defee rek euh, waxtu wi moom mi ngi dëgmal si maanaam mi ngi dem waaye bu boobaa ñu gën a laabirante rek ci wàllu nekkaale bi nga xam ne doon nañ ci faral di wax lu bare bare bari ci ay jataay ndax nit dafa am ay composement ay bindiin yu ko yàlla defal ci ay cëram cër yi itam nag ay bunt la ci moom bu ci nekk mu am jëf-jëf bu mu war a jëf bu dee loxo bi la bu dee tànk bi la na ko sëñ bu mag bi waxee nee na kenn ku ci nekk sa cër moo lay goreel sa loxo moo lay goreel wala sa bopp wala sa biir walla sa gannaaw wala sa wet wala sa tànk ndax ku nekk dafa am foo jàkkaar lool ci sawara ab bunt ni cër yi demee juróom-ñaari bunt bu sawara noonu la demee juróom-ñaari cër yi doomu aadama yi te bu ci dem fenn rek moo koy poussé ba yi ci des fekki ko par exemple bu loxo bi defee luy yóbbu sawara day dem sawara waaye bu ko defee cër yi ci des day àndaaleek moom wala yaasubillah su fekkee tànk bi moo def luy yóbbu sawara tànk bi day dem sawara waaye day yóbbu yóbbuwaale cër yi ci des bu fekkee bakkan bi la wala gannaaw gi wala biir bi kasaalika yooyu su ko defee nit cëram yooyu mu amee dafay lëkkaloo toujours ak elmu nujum bi ñuy faral di waxtaane ndax booy xool làmmeñ bi walla bakkan bi wala bët bi yooyu ay yéeguwaay lañu kee day yëg ci xool kii di yëg ci mos kii di yëg ci nokki bu ci nekk nag gis nga foofu kon danga nga fay daal di mën a ame xawaay yu day taxaw maa yu day taxaw waaye euh, kii turaab yu day taxaw itam nag am na nit ku ci nekk ay cëram nu muy jokkalante ak tabia yi nu muy jokkalante ak biddiw yi kon bul jàpp rek na yow utaarit nga am yeneen biddiw yi amoo ci soxla amoo ci ah kay biddiw yépp am na ci doomu aadama yi nuñ koy jëflooyee waaye ba gën a fés nag la ñuy wax ne yow kot mariix moom nga amee fekk na boobu daa gën a fés ci yow waaye terewut suurata am na jëf jum lay jëfloo utaarit am na beneen bi itam euh, samsu ak yooyu yëpp kon dangay jàpp ne benn biddiwu samsu rek moo mën a boole yëpp waaye yeneen biddiw yëpp mënuñoo boole yëpp benn moo xaw a dabaatal tuuti rek muy xamar moom dañuy wax ne mooy naa naaibu naaibu sams ibu sams mooy xamar kon samsu moo yilif biddiw yi maanaam moo ci ëpp doole ki ko nekk nag faw moom it loola dafay feeñ ci ak dundam dana yilife dara waaye dana am njaboot kër dana am njabootu àll kooku yàlla moo koy dogal ci moom nit la koo xam ne ku ñuy respecté lay doon ñaare yàqu-yàqu yi nag mën naa bari ndax toujours léppam ci bi juróom-ñaari biddiw daa daje ci moom kon bu ne da ci am cëram da am cëru mustar dana am cëru xamar dana am cëru utaarit dana am cëru sool dana am cëru mariix dana am cëru yooyu yëpp suurata ba keroog biddiw yo di jeex kon moom mën nañu am na coono ndax ñaare lifam lépp yëfam yëpp mën naa baax waaye ci coono rek la koy jaare mu door a baax booy xool ñi ko fi amee woon ñépp biddiwu sams seen seeni mbir lépp dafay jafe lool ci njëlbeen gi waaye boo demee ba ci mujj ko day commencé teraanga di commencé di am euh, wér ak lépp commencé daal di am waaye fekk na booba dawal nañ lu bare bare bari ci seen wàllu àdduna kooku biddiwu sams danay taxawee noonu mbokk mi su ko defee rek yii da nga ci mën a sukkandiku ba mën a jàngat say mbir mën a jàngataale sa mbiri mbokk sax ci boo dajeeg moom rek ci ne ko noo tudd mu wax la turam rek bu boobaa lu baree bari mën nga koo jàngat ci moom moo xam góor la wala muy jigéen waaye yombul nag mbokk yi ndax nekkul xam-xam boo xam ne dafa dajaloo benn place boo xam ne saa boo ñëwee rek jël la nga soxla demaat nekkul loolu déedéet waaye dafay nekk sélection boo xam ne yow yaay gëstu gëstu gëstu gëstu fii gëstu fee gëstu fee su ko defee loolu nag ngay copier ci xel mi ngay jàpp ci xel mi mais pas du looy copier sax ci ay téere di ko def ay leçon ak yooyu waaye xel mi bu fekkee yàgg na euh, liir rek bu yàggee dana am lu ci des 88 628 19 05. numéro Baye Diagne nag moom mooy 77 183.

asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw kilifa gi. ñu ngi siyaar baax ñu ngi siyaar bu baax. alhamdulilah. baarikàlla. baarikàlla. alhamdulilah. ak gént de laaj. waaw bisimilah. damaa gént dem ci teen ba. gént. dem teen teen. dem. damaa dem ci teen ba. waaw. ma demee ma fekk foofu ay pël wëgg. waaw. benn pël bi nag xam naa ko lool ma ne ko ah yow sonn nga fekk uh, am na traite buñ fekk ab chambre waaw duy ko ndox ba mu fees waaw na dimbali leen ma ma takk ko ci fas wi waaw ko womatee nag jëm ci fas yi man mënu moon dara waaye damaa daw dem jàpp ci barankaar ba dimbali leen waaw dëgg la ma leen dimbalee ba pare nag ma may jëm kër ga mm-hmm. booba nag mënuma dara waaye damaa dawoon ci sport mm-hmm. bi ma ci kër ga mm-hmm. am ruq bu nekk boobu am am police bu fa làqatu léegi ma ma ma taxaw ni ci wenn wanaw wi di ko yurndu ba mu yàgg mu gis ma ma wàññee ko nag jamaat ci néeg ba nag foofu laa yeewoo ah, ah, ah. bu la soobee déglu ko ci rajo bi maa ngi koy leeral incha allah waaw kay jërëjëf jërëjëf allo. allo waaw. sant bu baax. wala. Hmm? bisimilah. waaw bisimilah. Mbène Diop. Mbène Diop. ak Babacar Ndiaye. ak ndax mën nañoo ànd. waaw. leeru seen diggante. Mbène ak Babacar waaw kay ko defee Mbène dafay taxawe moom benn bu ko defee Babacar euh, dafay taxawee moom it euh, trois mu cinq six sept huit neuf euh, adat bi waaw kay ñoom ñaar su fekkee ne seen diggante mi ngi am bu boobaa juróom benn mètre yi tiise moom la laaj ndax diggante bi daa xaw a lëndëm chiffre bi des chiffre six moo des hmm. waaw dafa lëndëm waaw hmm. Babacar maam Diarra ak maam Diarra waaw Babacar 9 Diarra 4 5 6 ak 7 7 8 9 moom it 5 6 7 dafay taxawee 4 5 6 Diarra ak 7 uh, mu nekk fukk ak ñeent kooku chiffre 4 lay taxawee chiffre 4. kooku mbaxana mooy sarax bi mbaxana mbaxana mooy sarax bi ok mbokk mi mbaxana mooy sarax bi jërëjëf 88 68 10 ku njëkk ka ku njëkk ka muy benn euh, tise ku ci des mbaxana balay mooy am balay sëy bi di am loolu ay conseil la ay leeral la mbokk mi dafa gént dem ci teen fekk fa xam naa ñuy wëgg ak yooyu lu mel ni sareet ay lu mel ni xam na sambraay buñ teg ci kaw saret waaye maa ngi koy xamal ne ko ba mu demee kër ga fekk na fa police mu mel ni dafa làqutu di ko yurndu gént gi tout départ bi la baax waaye ñaar yi ci rax si yépp gàllankoor la diggante teen bi moom ak ndox mi nga gis ñu di ko si jukkee ndox mi ciy jukki ko kooku moom baax na teen bu am ndox bu amul ndox lañuy wax ne baaxul bënn gu amul ndox moom baaxul su boobaa moom dina ko firee bàmmeel faw da nga ko siyaare ji wala yu mel noonu nga dem ci ak ak yu mel noonu waaye comme am na ndox moom kooku lu baax la te wërsëg wu kawe la wërsëg wu kawe la ci yow su boobaa nag dafa am nag gàllankoor bu caam moo indi saret boobu ndax saret day taxawee ci wàllu liggéey day taxawee ci wàllu noon saret bu day jëmmi fas kese moom am na xeeti indiinu géntu fas waaye bu boobaa dañuy soxla wa couleur fas bi xong naag weex naag ñuul naag yooyu waaw bu dee bu weex la bu dee bu xonk bu dee bu xonq bi moo gën tubaarkàlla waaye jëmmi saret moom baaxul ci biir gént jëmmi pëlis it jafe-jafe lay jur ci gént maanaam am di lu saa boo ko géntee rek jàppal ne fan yooyu nattu mën naa am ci njaboot bi wala ci dëkkandoo yi wala ci fenn te da mën nga teewee nattu boobu mooy nattu euh, almawtu kooku mën naa am ñaare saa boo ko géntee rek loolu moom boo ko takkee da nga ko gis incha allah jërëjëf mbokk mi kon daal gént gi départ bi baaxoon na waaye ñaari feeñ-feeñ yi ci feeñ mooy indi gàllankooru baax baax bi baax na mooy kaw wërsëg la wërsëg la teen buy génn ndox mu wërsëg la waaye saret bi ak police bi kooku moom moo mujj indi ndong mi jërëjëf asalaamaaleykum. waaw bisimilah. mbokk mi. sant sëñ Tuubaa baax. alhamdulilah dama doon seetlu de. acca bisimilah tur bi. diggante alaaji alaaji ak Fati ku ñuy wax Fati. alaaji ak Safi. Fati soxna Fati. Satu. soxna Fati Fati. soxna Fati. Fati Fati waaw soxna Fati. soxna Fati. waa kay Fatima su ko defee alxaaji dafay taxawee trois ak sept kook chiffre un la baax na boobu sëy baax na dara dara dara kalewu ko mën na nekk hmm. waaw mën na nekk chiffre un la chiffre un leer la waaw waaw baax na waaw hmm, man damaa bëggoon seet sama mbir sama yaram nag waaw yow it euh, macha allah dafa amee benn euh, jàngoro bu nekk ci yow di wëndeelu sa hmm. mu deñ ndax euh, jàngoro bi nitu ndox nga daal nitu ndox nga hmm. day baagal rek ci yow danay tàng yaram wi nag bu njëkkoon sax euh, ni mu la daan def mooy jamonoy tàkkusaan la daan bañ bu njëkk jëm jëm guddi waaw léegi da gis ne da koy sentir yeneen yu dut ar yooyu itam hmm, waaw mhm. kon xam naa ne ngay def euh, mooy da ngay génne saraxu boo mënee togg benn benn dabu laax benn dabu laax nga togg ko nga saraxe ko dana baax ci yow. waaw baax te wut ay saafara ci yaram bi ut ci ay saafara. waaw baax na. jërëjëf alaaji jërëjëf alaaji jërëjëf loolu mooy tawatam tubaarkàlla 88 628 19 05 lu lu lu lu leer lañ ko wax itam nag waaw lu ñu làmbatu du lu ñuy defe naa du lu ñuy foog naa mbirum nitu ndox la tubaarkàlla kon mbokk yi képp ku ci am tawat rek jaaral foofu ñu seetal la sa tawat lan mooy cosaanul tawat li cosaanu tawat nag bokkut ak manifestation tawat bokkuñu cosaanu tawat bokkul ak ni tawat di manifester woo mhm. mën ngaa amee rab muy metti bopp mën ngaa amee liggéey muy metti bopp yooyu yëpp mën naa nekk mën nga amee ndoxu siti muy metti bopp waaw gis nga alaaji mustar la yore biddiw mustar la alxaaji yore alxaaj alxaaj xaaj xaaj ji mooy dox kooku mustar lay taxawe alxames mooy dëppoog bisam am na rab nag rab bu ko yàqal am na ci kon mbokk yi mi ngi noonu yaakaar naa ne fi ñu war a yëkkatee sunu jotaay agsi nañ fi gannaaw lii rek ñu ñëw tàggatoo. acca ñu fàttaliwaat leen numéro bi 77 183 68 38 77 183 68 38 am na whatsapp bu la soobee itam nga jël euh, nga jël tigo bi 76 855 72 46 76 855 72 46 kooku mooy tigo bi Baye Diagne Asrar ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm kon xam naa foofu la ñuy daal di jéem a taxawlu sëñ Modou Diop Thiat ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare njaboot gi yëpp tubaarkàlla sëñ Fallou Fall moom it ñu ngi koy ziar di ko ñaanal ci taxawaay bu rafet bi ak euh, kilifa yi yëpp Baye Mor Basir al Nasir nañ la bu baax euh, Modou Bale ziar El Basir kilifa yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm kon bu leen toxal seen ondu buñ ne diis rek dana am ñu toog continuer wéyal liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa